Thank you. di les jusqu'à aujourd'hui Covid 19 na fi fait. Nous tenir toujours le fil conseil directeur l'ensemble de la salle Qui peut orphelin ak à qui nous nous, si nous nañu sunu ko ci bi Touré ministre madame le ministre premier ministre soo nga demal ñu ba palais présidentiel joxoon ñu ko le président Macky Sall. Madame le Premier ministre tey journée internationale des veuves la ñu wax et des orphelins ñu jël la def la tey muy le journée bi nga nekk lool xaritu président jege ko lool nag ñu amoon nag suñuy doléance yoo xam ne tey veuve yi ñoo ñu ko yónnee doléance yi mooy. journée bii nekkul jour férié nekkul un week-end jour ouvrable la muy un jeudi veuve yi ñëw salle Grand Théâtre fees kaw ba suuf ñëpp di ay jigéen te kenn ku ci nekk da nga am sa responsabilité ñu ne lan mooy veuve ñu ne mooy fa jigéen ko amoon di fa dalal xelam am fa wéeruwaayam ñu ne kooku moo dem bàyyi ko moom dom nga kër ga mu war a dal uti lu mu nekk la kon kooku su bàyyee lépp ñëw toog bëtu yërmande war naa daw bëtu sensibilité war naa daw xam ne ñëpp cat ba cat su ma limee damay juul ndax tey jii bis bi bu taxawee jàpp nañ ci lu baree bare di nuyu mbooloo mi yépp yaayu jirim yi ñi nga xam ne ñoo ñëw taxaw yépp ki nga xamante ni nii amoon nga yéenee taxaw ak jirim yi nga xamante ni ñi ngi ci kër yi wala ñi ngi ci ñi ngi tey ci journée bi bokk koog ñun. tey nag kàddu yi du bari dama koy tënk ci ñetti ponk rek mooy ñetti point kàddu cant la ak gërëm kàddu sargal la kàddu également ñaax la bu baax baax ñu defaraat tooxa toogaay yi cant gi ak ngërëm gi nag dama koy jiite ci DG directeur général Amady Dieng di ñaan madame le ministre mi teew ak kilifa yi teew yépp ñu déglu ma bu baax may ma nopp ci li may wax ndax lu ma ñor la ndax 2016 ba tey du benn weer du ñaari weer yaay jirim yii fi toog ak seen njaboot yi leen wër bu seen bët xonqee ci Amady Dieng yi lañuy ñëw du nangu bis de du nangu aussi ay fonction parce que mbir danga ko def ñu fooni danga koo jéggaani wala dangaa nangu jëfi ki nga xam ne moom lañ ko dénk waaye lii Amary Dieng di def don de soi la du ñëpp ko mën day def nag te yàlla tax dëgg la nag am na ay kuréel yi nga xam ne moom lañ fi samp pour ñu jàppale cible bi waaye moom da caa gën a sawar ëpp ca yéene ëpp ca pas-pas di def te yàlla tax madame la ministre ñoo ngi lay seedee ni Amary Dieng mii toog jullit piir kon tey dañu koy rend hommage moom Amady Dieng ndax mënoon naa toog rekk ni am na ñu ko dénk am na ñu ci gën a yeeyoo mais dafa jël jub dëggal boppam taxawu xoolu seetu dégluwul di def te yàlla tax kon Amady surtout man li may wax xam naa ko bu baax ndax damaa yàgg ak moom ñu bokk pas-pas te ñu bokk pas-pas dañuy yëgoo di déggoo di dox di wax moo man moo ma téye ci moom donc ñu lay sant di la ñaanal yàlla amadi cant googu nag bu ma ko jiitalee ci yow dama ciy teg ñi nga xam ni 2009 ba léegi soutien aux orphelins, enfants vulnérables et veuves, c'est grâce à nous. dañuy def te yàlla tax munu santee gërëm ñooñu ba pare di sant ñu ñu bokkal liggéey bi yépp munuñoo lim yépp bu ñu limee dañuy lim cant googu daal ñu leen koy seedeel di wax ni wax dëgg yàlla am na fu mu tàmbali am na fu mu yem ginnaaw cant googu ak sargal gi nag lu munul ñàkk faaw mu am wax na ko fàttundul wax na ko madame Loum wax na ko suñu directeur général Amady liggéey wax na ko waaye wax waxaat bu bëri wax dafa fekk li ngay wax am solo madame la première ministre dafa am li nga xamante ni mënta ñàkk faaw ñu wax ko mooy ñii nga gis ñëpp ñi ci ëpp ay yaayu jirim la ci seen kàddu laay waxe en tant que présidente association am Soof nee nañu de dëgg la am na bànqaas

Nous sommes au quotidien de ces populations au jour le jour Nous bëgg structure structurer. monsieur le ministre nous avons Ka ministre du développement communautaire et de l'équité sociale Nous sommes des les bi jëmmal ko parce que li ñuy def ñoom lañ koy dañ koy problème de prise en charge euh, euh, euh, sur l'éducation parce que beaucoup bokk ci en sixième interpellons ministre de l'éducation nationale le plaidoyer c'est véritablement que cette journée puisse entrer dans le calendrier républicain et qu'on en fasse une grande célébration, que les veuves et les orphelins soient véritablement... Occuper une fonction importante, mais comme si Premier ministre, gérer les projets et programmes réunis, comparer gérer le ministère du Boré avec le président du Conseil économique, social et environnemental, moi, Aminata Touré, Genesim Chimimi Touré. tout au long de cette cérémonie, que cette journée

ci ci dëkk bi moom mooy maam te ña fa nekk ñëpp dañu meññ ci maam yooyu ba nga xam ni ñii nekk ci dëkk bi ay mbokk la ñuy nekk euh, alpulaar yi dañuy wax sare boo demee feneen dañuy wax Kounda dañuy wax Cissé Kounda di wax Touré Kounda di wax sax Tamba Kounda maanaam ñi sant Tamba ñi bokk dëkk benn dëkk alors loolu daf lay wan ni kon njaboot ci di ñu ko mosoon jàppee démb ak bëtt démb dafa nekkoon lu yaatu lool te organisation bii li ma jàpp moom mooy comprendre na ne njaboot dafa yaatu te ñun ku ci nekk rek am nga responsabilité ci njaboot yi war nga koo taxaw ak foo mën ci nekk donc bu ñu nee nañu taxawu njaboot nañu taxawu jirim nañu taxaw ñi nga xam ne euh, seen borom kër nekkatu fi kon dafay wane ni njaboot gi yaatu na bu ma ko jàppee ni man ñi ma bokkal ndey ak baay rek la wala ñi ma bokkal rek ci deret rek rek la njaboot dafa yaatu kon ñoom dellu nañu ci cosaan dellu nañu ci aada moom mooy euh, li nga xam ne mooy tegtal ni njaboot dafa yaatu dañ koo war a yaatal te yërmande bi dafa war a yaatu jàppale bi dafa war a yaatu bi ci des moom mooy le président de la république Macky Sall le président Macky dafa dafa njëkk a def euh, yoonu yokkute muy benn offre bu mu bu mu proposé woon peuple Sénégal yoonu yokkati évoluer indi programme Sénégal émergent programme Sénégal émergent mu wax ci capital humain mais capital humain bu ñu koy wax moom mooy jox cër doomu aadama maanaam baax na lool ñu am ay tali baax na lool ñu am ay fu ñuy fajoo baax na lool ñu am ay stade waaye nag li njëkk mooy ñu toppatoo doomu aadama bi ba pare ba doomu aadama bi nekk ci jàmm doomu aadama bi mën a sàkku xam-xam doomu adama bi ñu mën a def ci moom ay jikko rafet loolu moom mooy capital humain maanaam yëg-yëg bi nga xam ni moom la ñu war a am ci doomu aadama bi mais loolu mu ni kon doomu aadama bi dañ def ci moom ay jikko yu rafet parce que tamit nit ki bu fekkee ni am na xam-xam te amul jikkooy rafet loolu problème doom nañu def ci moom jikkooy rafet nañu delluwaat ci ay aada ci ay cosaan nañu delluwaat ci suñu ay gëm-gëm fexe ba waajal ci suñu ay ndaw tey jii boo ko dee xool bi ci côté xaw nañ ci xaw a tawat tawat nañu ci diine tawat nañu ci ay gëm-gëm tawat ci aada tawat nañu ci cosaan dañu dem ba nga xam ne léegi nit ki yenn saa yi ko lu mu bëgg rek lay def donc dafay baax ñu delluwaat ci loolu loolu moom moo indi programme bi ñu dénkoon dem si yàlla Iba Der Thiam mu waroon a bind l'histoire générale du Sénégal pour que ñu xamaat ñun fu ñu jaaroon fu ñu xam suñu ay maam cosaan suñu ay gëm-gëm ñu xool naka lañ koy tëggaatee jàngal ko suñuy gone je crois que loolu dafay baax pour def ci ñoom ay jikko rafet ginnaaw loolu tamit nag ñu def ci ñoom ay xam-xam mais loolu moom mooy offre éducative boo xam ne dañ def xam-xam ñoom ci école tubaab bi école nasaraan bi mais def ñoom xam-xam aussi ci école alxuraan bi nga xam ne dañuy jàng alxuraan bi toppatoo leen loolu indi programme daara moderne je loolu aussi am na importance ñu diversifier l'offre éducative bi ci toog moom mooy nit ñi mën a faju je crois que ku xool couverture couverture maladie universelle wala nga xool

ñu bëri dañoo juum jàpp ni développement mooy nga am xaalis bu bëri mooy nga am ay oto mooy nga am ay kër yu rafet gis nga am na ci àdduna bi ñoo xam ne am nañu ay oto am nañu ay kër yu rafet am na ñu ay tànn yu rafet mais boo demee fekkoo fa jàmm boo demee dund gi ci jàmm donc dañuy dem ba gëm ni kon développement mi ngi nekk ci nit ki nekk ci jàmm nit ki am bien-être nekk ci jàmm boobu mooy bu bëggee jàng bu jàng bu jikko yi rafet yi yi war yi nit war a am bu am ko bu bëggee faju mu faju loolu bu ko nit ki amee même bu fekkee ne yenn yi amu ko mën nañu jàpp ni kooku am na génneet kooku am na lu nga xam ni mën na dund dund bu dund bu yëwén dund bu sell dund bu jaayoon loolu nag ci suñu yaakaar euh, am na ci ay jéego yu nga xam ne suñu nguur gi niñ koy def mais euh, comme ni ñu ko waxee fii léegi wuur gi dafa am lu muy junj mais dafa am loo xam ne nit ñi ñoo koy yeggale kuréel bu mel nii euh, bi mu Dieng teg mën nañu jàpp ne kuréel bu am solo la kuréel yooyu doon gën dafay nekk loo xam ne dina gën a yëwanal nit ñi seen nekkin. mais gis naa la ci famille yëpp ci les femmes ci la jeunesse ci les populations rurales kon ñu ngi lay ñaanal yàlla fay na ko fay la ko ci seen njaboot ci gudd fan ak ci wër lii nag mooy jàpp président la république tamit ndax mu ngi def képp lu laayu kàttanam ci la carte d'égalité des chances qui les bourses familiales les bourses familiales veuve veuve 300 000 familles les chaque année mu jël 30 milliards les les veuves et les orphelins voilà qui ku cette petite participation nga indi président de la république

sunu xel ci ñi nga xam ne seen doole bariwul ca lay dem loolu maa yow bokk nañu ko kon vraiment am nañu tey kontaan bi ñëw fii proposition bi nga xam ne nag moom laa bëgg a def ñëpp dégg mooy na ku ne ku ne ku yàlla rek dégg tuuti wërsëg yaa xam fonctionnaire nga waaye surtout yaa xam politicien nga mooy nga parrainer une veuve et un orphelin

ba ëllëg ak si biir nga mën a dimbale keneen defe naa ne loolu aussi mooy li nga xam ne euh, mooy xalaat yi nga xam ne bokk nañu ko ah di wax rek ne ñu ngi vraiment féliciter la rampe ñu ngi leen di féliciter bu baax la rampe pour la rénovation sociale. di nuyu aussi sama mbokk mi nga xam ne ñoo bokk Saloum muy Ndeye sec foofa nag aussi di dëkku teraanga boo xam ne solidarité vraiment Sénégal daf fi sax ndax lañu xamoon bu njëkk ba mooy bokk lépp. bu njëkk ba sax da nga daan yónni sa doom ne ko defal nga ne sa tante mu may ma xal loolu mooy taaluñu ci kër gi loolu kon war nañu indiwaat culture de solidarité boobu mooy tey li nga wane tey amani euh, vraiment ñu ngi la ci félicité voilà di ñaanal ñëpp ak mbokk yi ko fekkee ñëpp ak ñi ci dugal seen doole ñëpp mu tuuti mu bari solidarité soxlawul nga doon borom barke ba loolu laa jàpp ku ne mën ngaa solidarité ca la nga am yaa xam fukki bekk suukar yaa xam saaku ceeb nga yónnee yaa xam doon nga yónnee waaye borom alal yi nag ñoom war nañ am poche bu baax a baax a baax baax voilà dal di jàppale ko daa dara bu ko defee ngeen mën ko albati jox ko les veuves et les maa leen di gërëm di leen sant bu baax baax baax jërëjëf.